arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Youssou Ndour Thiatou Yoff Thiatou Yoff a ngi waree Yoff Youssou Ndour a ngi waree Guédiawaye arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre bi pare na Youssou Ndour pare na Thiatou Yoff pare nañu arbitre bi sifflé na dimanche 16 janvier il est 21 heures 43 ñaari xale yaa ngi ci diggi géew bi Caatu Yoff ñaan na taf ci gémmiñ gi Youssou Ndour na taf ci bopp bi ñoo ngay demee wet ñoom ñaar Caatu Yoff ci bu na suuf bàyyi ji ni noo gisee combat bi. Ousseyn ñoom ñaari xale yi ku ci nekk bu nga simee xam nañ ni tëddee woon di nelaw fonk nga bés bi Youssou Ndour boo gisee état de forme bi mu indi malgré wàññi na poids par rapport ak combat bi mu jugee waaye gis nga ni mu indi nga xam ne vraiment liggéey na ci combat bi caatu yoof noonu ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk Bébé Diouldé nga mujjee daan kii daan ko arène nationale kii daan ko stade Diop Iba ma Youssou Ndour ko mu mujjee daan stade Diop Iba Mar caatu yoof daan ko fii ci arène nationale ñoom ñaar ku ci nekk Caatu Yoff yaakaar naa su ma juumul bi mooy deuxième combat bu mu bëre fii ci arène nationale Youssou Ndour bu njëkk arène nationale mu ngi nii ñoom ñaar ku ci nekk fi mu toll nii dafa am loo xamante ni foo nga ñu mën la ko yebee nga mën a bëre ci combat bi génn ci mooy Youssou Ndour géejawaay gépp dañoo man koo am ci moom yaakaar yëpp ko tey ginnaaw bi bàyyam génnee àdduna ba tey bi mooy deuxième combat bu mu bëre Caatu Yoff nekk xale boo xam ne Yoff am nañ ci moom yaakaar mu war a bëre en tout cas lu mën a xew warul yomb ci ñoom ñaari xale yëpp. warul yomb ci ñoom ñaar ñaari xale yi. combat bi yàgg nañ koo dox. yàgg nañ koo bëgg. waaye tey la ko yàlla doo ko sottal. Youssou Ndour Thiatou Yoff. est-ce que dana sax ñoom ñaar. combat bi jàmmaarloo la léegi ñoom ñaar kan nga jàpp ni. lan la ci waxoon lu garaaw loo xam ne jàpp nga ni kii kat waxoon na ko adversaire bi. Thiatou Yoff woon na. waaw Lamine Golo moo tee jël Youssou Ndour ndax Lamine Golo ñemewu ma. waaw. Youssou Ndour ne ko sama papa Lamine Golo moo yeewi moo ne ma naa jël combat bi kon Lamine moo nekkoon ci diggante bi te Lamine yeewi na leen. yeewi na kon de caatu yow war naa xam ne Lamine ñeme na ko ndax Lamine gis naa ko tey mu def lu mus a def Ousseyn indi ay butéel sax jox Youssou Ndour sotti ko ko mu leer ni combat bi am na fu mu toll Lamine Golo ndax Lamine ne ko ko teeloon Lamine moo ko jëlloo waat. moo tax loo ci gis. Lamine dafa ànd ay dernier butéelam moom. waaw teg ci 16 am bi ñu sottee ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour ba noppi. mu jël ay butéelam jël initiative am wane ne lamb ji tey sama lamb la bi ma ko fekkee ci biti dama ne ko am nga bés mu ne ma bés bu mag waaye ba ci kanam. waaye ba ci kanam Ousseyn ñoom ñaar nag combat bi combat calcul du combat doole du combat xeex du combat bëre combat calcul la ñoom ñaar ku gën a calculer sa morom mun ngaa daan ci combat bi. mooy stratégie moo koy bëre stratégie mooy naxe. stratégie mooy daan waaye xeex daal bëgguma ko ci kenn ci ñoom ñaar. kan la xeex en ci combat bi. caatu yoof caatu yoof actuellement moom daal xeex bu ko woowoon bu ci woowoon Youssou Ndour Youssou Ndour wuyu si ko. ca Youssou Ndour dañuy gis ne ni muy xeexee baaxul sa jour day doo gauche droite mais bu doo day gëmm xool. loolu loolu loolu bokk ci lu ñu defar tey ba coach bi di Lamine Golo bi ma ko laajee ci open press Youssou Ndour daf na ma Youssou Ndour daf maa ñaan ne ma may ma rek. donte une minute la ma xeex ko caatu yoof waaye xeex boobu caatu yoof dina ko woo Youssou Ndour waaye Youssou Ndour bu doon maay moom du ma ko wuy si ndax boo ko wuy see ci xeex bi caatu yoof da lay wor ñëw ci bëre bi te ñoom ñaar ku ci bëre kenn ki xeex kenn ki day ñàkk làmbam Ousseyn. li ma ci mën a xam mooy caatu yoof doole daanu ko. déedéet bëre dëgg koy daan. bëre koy daan parce que boo xoolee am na taay bi am na gabarit bi te am na doole bi Ousseyn caatu yoof boo ko gisee nii mu toll. nga xam ne vraiment ndaanaan na ci làmb Caatu Yoof actuellement ci làmb li mu war a wane ci làmb yaakaar naa ba tey waneeku ko waaye saa yu amee combat ñu ne am na bis waaye Youssou Ndour combat bi weesu da cee jàngale lu bari diggante ma Bébé Diouldé dañ ko wër ba muy waaj a daanu ba yaakaar daanu na mu yeggale xale bi jottali ko daan ko muy wane ni ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ ay champion lañ ay ndaanaan lañ ci làmb Ousseyn. kenn ku ci nekk làmb ji soo ci génnee mën na laa yóbbu fu sori sa carrière mën na defaraat sa làmb ba xale yi yàqamti wuñ ci dara bi ñu sottee ko seen gàllaaj waajaay waajaay bi yàgg na mu mel ni Modou Lo Balla Gaye bu sori ñoom ñaar ñii combat bi àtte boppam tey combat dafa am stade Diop Iba Mar combat am fi stade Diop Iba Mar armée moo fa doon bëreeg xale bi nga xamante ne mooy ambulance da ngay xeex mu daanu door na ko mu daanu waaw. door na ko mu daanu. door na ko mu daanu Youssou Ndour door na ko. jël na ku lu ma la waxoon Ndour door nañ ko mu daanu. Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam. Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam. jaat yo. jaat yo.